jërë ngeen jëf mbokk yi ànd ak euh, Baol Média info ak euh, Baol Média FM euh, mbokk yi dañ leen di indil vidéo yu doy waar yi nga xam ne mi ngi xewee ci Maroc di lu metti nag di Maroc nag suuf si di yëngu askan wi nag nekk ci ay jaaxle lool yaa ngi déglu vidéo bi am na ay sénégalais yu ci wax sax ne ñu ngi sàkku ñu ñaanal leen bu baax a baax. loolu nag dekk mbir moo xam ne nii tiis na lool askan wi tiis na lool waa Maroc ak ñi nga xam ne nii mooy doxandéem ya fa nekk te mooy sénégalais ya fa nekk mu nekk nag mbir mu doy waar moo xam ne nii euh, jaaxal na leen itam maanaam dëkk ba daal dafa ànd suuf si di yëngu yëngu bu am solo boo xam ne nii daal vraiment nekk na miracle daal nga xam ne suñ borom day wane foofu boppam askan wa nag euh, jaaxle nan lool lool lool boo xoolee sax vidéo yi nii boo seetaanee da nga ciy gis ay nit ñoo xam ne nii dañuy daw di làqu di wuti fu ñuy fu ñu fu ñu mucce te euh, mucc itam mucc ci itam jafe lool lool lool ndax li tax mucc ci jafe mooy tabax yu bari da leen tiim yaa ngi gis vidéo yi tabax yi ni mu leen tiimee ñuy daw di di di yaa ngi dégg yàlla xam naa ni moom ñaari suñu jaaxlee rek dañu tudd yàlla ndax bari akbar mu na ci lool ñoom euh, boo xoolee gis nga euh, tabax bi gis nga tabax yi ni ñu tojee mu nekk lu doy waar loo xam ne nii yéen ñiy seetaan seen seen Baol Média TV yéen a koy gis mu nekk mbir mu doy waar mbékk mu mbir mu tiis xanaa ñu naanal rek euh, suñu mbokk yi nekk foofu ci Maroc suñu boroom sàmm leen defal leen jàmm euh, rawatina mbokk yi nga xam ne ñoo fa nekk di ay sénégalais di ay nit ñoo xam ne dañuy daani seen doole. Euh, waa groupe Baol Média ñu ngi leen di ñaanal suñu borom defal leen jàmm ba ñu génn ci foofu ñu ne ndax wax dëgg yàlla tiis na lool daw na yaram lool metti na lool te it nag euh, courant bi am na ci partie yoo xam ne dafa coupé lëndëm lool boo xoolee ci vidéo yi da koy gis mu nekk lëndamaay bu doy waar boo xam ne vraiment euh, yéeme na trop yal na yàlla aar waa Maroc ba ñu génn ci jafe-jafe yi nga xam ne ñu ci ndax tiis na lool te it nag doy na waar lool. bon gars yi yéen ngi gis nii ñu ngi nii euh, au quartier Sidi Marouf c'est à Casablanca sunu appartement yi daal lañ tëdd toog quelques instants euh, immeuble bi di vibrer ñëpp di yuuxu après ci lañ génn ndekete tremblement de terre la moom moom la première fois ma dégg ko au Maroc de terre moo fi am nii gis yaa ngi gis nit ñi ñëpp a génn seeni kër immeuble yaa ngi nii waaye pratiquement tout le monde est